مدي رسول الله لي هذا مطلبي ولي ليس دار واسم مفند ودادي ربي سكوري على النبي رسولا كريما مثله ليس يولد لقد من من سن المخفى محمدا يؤكي وليدا قد مدى أو سيولد داني يا مدعي سبيه محمدا أماني ومن لم يهوني فهو يطرد di am mbégte bu baax ci ñëw gi nga xam ni ñëw na ci kër ku baax ku tedd muy Cheikh Alassane Sène sopp Seydina Muhammad sallallahu wa sallam nga xam ni dundam ak dalam lépp jox na ko yonent bi maami Cheikh Sidi Mouhamed mii rekk la bëgg ba ñaari doomam yi jigéen ñi mu am ñëpp yonent bi la leen tudde ñëw gi fi shérif euh, ñëw moo waral cheikh bi ñi mu am ñëpp euh, tey euh, ci ñi nga xam ni ñoo ko gën a jige waaye lu doon pas-pasam tey mooy tàntal ko reyal ko ay gàtt dàq giléem yu jóge Mauritanie berndeel ko ndax ki ñëw ci moom daal di ci moom ويعذروا ياسر من الشيء لانك ما هو قدرك عند قدرك شيء كبير انك قدرك شيء كبير عندهم هما يذبحوا يبنوا الخيام ويعدوا ذا كامل وينحروا البل ويعدوا ذا كامل ان شاء الله تعالى عنهم هذا هو قدرك عندهم هو كانوا يخلون يعدوا Euh, dañ doon def présentation waaye bu seex bi jëlee kaddu euh, li mu bëgg a wax dana ko wax ci diggam ak moom incha allahu taala. ñëwam gi fii neex na ko lool. ndax ndax barki dem rek la jóge ci cheikh Mouhamadul Muntaqa. tabaarakallahu kon euh, ñëw gi mu ñëw fi tey. cheikh bi xolam sedd na ci. moom daal di jël kaddu gi jox ko cheikh bi rek moom tabaarakallah mu nuyoog moom saafanteeg moom. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. وأنه ساجد وراك لرسول النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحمد لله lii lii nag lay tàmbalee nuyu ko tableau bii laa ko bëgg a may moom laa ko bëgg tàmb ku sell lool moo defar tableau bi ma ma tàmbalee ci nuyu ko ci tableau bi may ko ko muy maamam sallallahu alayhi wa sallam وقدموا لك معنا لوحة ثمينة مذمنة أنا ما هي ما هي لوحة بسيطة am na yaakaar ne am na ci mbégte mu kawe tableau bi ma ko may mu bàyyi ko ci maamam sallallahu alayhi wa sallam wallaay wallaay lii laa tàmbale wallaay lii laa tàmbale wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi xolam wallaay wallaay maamam sallallahu alayhi dañ ko bëgg

sët la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax li tax mu gën ñëpp bokk na ci moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam oyof bi nekkoon ci moom أنك منك أنك إنسان بسيط دل دل جنك كنت موم أنك إنسان بسيط وإنسان إنسان يعني ما ما قدير يعني إنسان بعطيش مع الناس كاملة تيويلة عندك جسنا نيكو تي موم عندك النبي صلى الله عليه وسلم عن ذيك طبيعته طبيعة هذيك طبيعة عندك تمل ne ko ñëw bi nag lenn rek laa ci jublu woon. an hadi numji an waaye wax dëgg la day guddal rek. mooy présenté ko. ñeenti téere yi ma bind ci yonent bi nga xam ne ñeenti ñeenti tom la ma bind ko ma ne ko lii laa ci jublu woon wan ko ko dama ci am nag maa ngi bind en français mu nekk 2000 pages waaw ne ko li ma ci jublu woon dafa am liggéey bu mag bu ma ciy waaj a ci bitim réew bu mag a mag a mag bureau bi nga xamante ne moom moo ko war a def mi ngi nekk ñiw Delhi ci Inde ñi koy def ñoom mbokk nañ ci topp dix intelligence artificielle عنهم معذرين عنهم الناس اللي boromi xam-xam yu mag a mag a mag ñoom laa ci ñoom laa jël ngir ñu tàmbale liggéey bi te te liggéey bi li ci war a juddu ci ci koom ci alal dana dimbali néew di doole yu bëri ci ci suñu réew yi ne ko xalaat bii nag ma am pour mu wesaare ci àdduna bi maam maamam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ma ko xelal ma yàlla def nag ci jamono jooju euh, sëtam ñëw Sénégal alhamdulilah mu mu mu loolu mu dimbali ma ne ma laataa ngay jóg di ko yóbbu mhm. sëtam daal ci def ñaan mu ngir mu barkeel من قال لك عنها الحمد لله دورك تضرب له مولانا ان شاء الله روايه تعود فيها بركه وتعود فيها خير انك انك يعقوب هو اللي الحمد لله انه يجيك هذا من عام ذلك لك روايه ci kanam ku ci lay tiisar incha allahu taala. ne ko sant naa ko bu baax. alhamdulilah alhamdulilah xatta. njaboot gi sant nañu ko aussi. bëgg naa ñu fasante kóllëre. bëgg naa aussi seet si ko Mauritanie incha allahu taala bëgg waaw dinaa ko téye moom waajur la ci ñun waaw ñun mënuñu gis ñu ne deretu yonent bi mi ngi ci réew mi sallallahu alayhi wa te nemmeekuwuñu ko dara anu dara anu maa ngi di eh, shuubu xadd min aal rasul aal bayt al يعود يعود يعود ما يعود تمويب دائما يسد مؤلف دائما يجوب li ma koy ñaan aussi suy ñibbi suy ñibbi léegi su fekkoon jamono la nga xamante ne dañu nekk ci désert mhm. man dinaa jël géléem mhm. takk buum téye moom mu yéeg ci kaw man ma téye ko ñoddi ko ba këram mhm. waaye jamono ji jamono oto la moo tax bëgg naa suy ñibbi man du may dawal sax waaye tey damaa bëgg suy ñibbi mu may ma ko man ma dawalal ko ba yóbbu ko këram waaw lii laa ko ñaan insha allahu taala الأعلام مع أنه كان يختار هو تم الوجود بك جمال البلاء لكن الوجود بك ذاك الزمن ما فيه ما فيه ما فيه البدء عنه فيه لاروتات وعنه يختار هو يحرك بيكون نفسه لين دارك بدل المساكن nii rek waaw ne ko dina nekk lu rëy ci man. Ah, waaw ne ko sant naa ko bu baax ci ñëw bi. ma bëgg su ñibbee. mu desee si biir xolam. ne ko maamam rek laa bëgg sallallahu alayhi wa sallam. wallahi wallahi amul lu leen xurmatahum wa azimu aradahum wa sallimu li mustafa jaddihim ala nabi ihtarimu حرمتهم وعظموا أعراضهم وسلموا للمصطفى جدهم شرف سمعان قف واستمع ذكر من انواره لمعت في الكائنات كالشمس في السماء طلعت شرف سمعان يمتي الله محمد لولاه ما كان ملك الله منتظما دنيا واخرى كل بي قد افتتحت سمام قد كان نورا ولا لوح wala xalamun wala samaun bi illa wa qad rufiat sërif samaam yonent yàlla Muhammad Mamadou Lamine li kulli nabiyin fal anaami fadilatun wa jumlatuha majmuatun bi Muhammadin bi Muhammadin wa bi bintihi wa bi baaliha وابنيهم السبطين أعلى من الهدى وبكل صاب لن نسمع لهم فهم ساداتنا أهل المكارم والندى يا رب فرج شقام العبد واكسف كربه يا خير من يمم العفاة له اليدا sërif samaam yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko sopp defal nii ñu màggal yonent yàlla muhammad qaalu taaha lakum alayna alwalaau laa siwaakum bima lakum aalaau matxukum jaa fi lkitaabi mubiinan anbatu anhu millata sumahaau xubbukum fardun ala kulli saqfin xadiisunaa bi damni l ambaaw aalu taaha sharafta minhum nnufuusa wa saaro xasiiman asrafoo yéen ay surafaaw ngeen aalu taaha آل طه لكم علينا الولاو لا سواكم بما لكم آلاو سمام ينتي يلا محمد بطيبة بين القبر أنقع غلتي ومن بري خير الرسل أتلو كتابيا لدى مبجع صمص الحقيقة قد هواه أنا لنا أفق الهدى والدياجيا فلما دنونا من سنن بدر وانجلا lana sitru xatta zaala min wujdimaa bi yaa sa maam mooy rasulun mooy xamidun mooy xaamidun wa muhammadun nabiyun sama fawqa sima kayni saamiya samaam huwa almuntaha majdan wa faxran wa suudadan huwa almurtaja yowman yasibu nawaasiya samaam wa awalu man abba wa awalu man labba alastu bi rabbikum huwa ruuxu warrahmaanu kaana munaajiya wa qad qaasha fi l anwaari xiinan musabbihan wa jaaba buxuuran ashratan mutadaaniya samaam wa kaana nabiyan binnubuwati aaliman booba wa aadamu bayna almaai wa tiini saawiya samaam wa anta alladi qusista kulla mahabbatin wa lam yaku zaaka alwaxtu gayruka baadiya ladaa man xijaabu nuuri kaana xijaabu wa bilkibriya wal izzi asbaxa باقيا له الحمد والإيجاد جل جلاله والإمداد من فضل المنير النواحيا سمام ولولاه لم تدر القليقة قدره بي فتح الله الكنوز البواديا سمام فأكرم bi man asra bi illaahu laylatan bi axtaraqa sabati baaqal awaaliya samaam wa min qaaba qawsayni almuniiri li rabbihi moom dong jege boromam dana fa tadalla summa haada almaaliya samaam wa lawlaaw lam tadri alxaliqata qadra yonent Yàlla ahmedu bi fataha allaahu alkunuuz albawaadiya Cheikh Alassane Sopé Taha du jaaxle ëllëg ca bés ba sopp taaha man abdu bis ba def naa ko fi daay cheikh al cheikh alsaan seen hubbu taaha lil muznibina najaatun wa amaanun min hawli yowmi liqaa'i haaja shawqi li hubbi xayril baraaya madhari lutfi akramil kuramaa'i sayyida rusli xaatimil anbiyaa'i muhammadin mooy safwatil asfiyaa'i yaa adwuli fasrif inaanaka anni watlubil xayra innani fi fanaa'i xamru shawqi man zaaqahu laa yubaali man ataa laa'iman biduuni imtiraa'i haaja shawqi li xubbi xayril baraaya mazhari lutfi akramil kuramaa'i na ñëpp def ni ñu màggal yonent yàlla muhammad mooy safwatul xalqi mooy xayrul bariyat mooy sangub araab ak Europe Moustapha moo jiite Soodaan mboolem yeneen yi moo leen séddu luñ mos a am ta moo leen di saytu fu nu mën a jëm te moom lan mos di xaajaani taar bi ci yuusufa neex baat gi ci daawuda nguuru suleymaan nga samaam yonte yàlla muhammad moo ko dénkaane yeneen bu ñëw balaa dem dana déclarer ay mbiram sa soppe boobu ndaanaani ndaanaani moo leen jox lu ñuy daane sa maam yàlla muhammad ibnu abdullahi ab tab la yaaram la géej la kum may dootoo yalwaani na ñëpp def nii ñu magal yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam am nañu mbégte ci ñëwam am nañ ci mbégte mu rëy xanaa di ñaan yàlla rek yàlla yàggal taxawaayam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa حاسنوا كانوا به ديارهم هناك فنكون ان شاء الله طول العمر بصحه البلد ان شاء الله sant naa ko bu baax a baax a baax. jërëjëf. ñu ngi ñu ngi gërëm yàlla ci ci ci voyage bi mu mu ñëwee fii. di yàlla def na nga toog yow ak moom mii. nee na mosul dem ci kenn. koo xam ne ñëw na ci moom. nee na bu mu déggee. yow ci du xam ni euh, nit boo xam ni dafa da nga bëgg ñeneen ci sallallahu alayhi wa sallam ci xool. nee na. dafa dafa jar na ko. mu dem ci dox ci tànkam. mu ñëw sa bi ba mu ñëw sa kër. nee na du ko def kenn. ku xam ne ñëw na ci moom. mu wax ku wax ku wax mu ñu mu ñëw après dafa parfois sax da koy wax man du ma ñëw. mais yow lu ma déggee ci yow. nee na nee na jour bii tey jour bi tey nee na jour ba xam ni bu bu gën a baax ci ci ci àdduna yëpp. mu gis ci àdduna yëpp. nee na bu ñëwee ci Touba Mbekk. ci ci gannaawam. nee na xam na ni bu mu jógee ci Touba Mbacké tàggu na ak xalife bi tàggu na ak waa Touba nee na nee na ci gannaaw loolu xam na ni dina am lu rëy ci xam ne ci gannaaw loolu. nee na Touba Mbacké. ak waa ak waa Touba yëpp. nee na nee na moom ci waa Touba Mbacké te Touba Mbacké moom moo ko moom moom moom ci waajuram ci waajur Touba waa Touba Mbacké. nee na nee na nee na ah, nee na kii ah, nee na kii nee na histoire histoire ñu ngi ci sallallahu alayhi wa sallam histoire ah, xaadim rasul xaadim rasul nee na moom am na am na ko am nañ waa kër waa kër Cheikh Sadie kese moo xam loolu nee na bu mu duggee fii bu mu duggee ci kese kër ba nga ñëw jël ko fële ci buntu bi xasayt nee na dafa am lu ñëngatu si ci yaramam. ishrah sadr. nee na am na xool bu dal dal dal. xasayt bi bi nuur. te am na gis na nuur yoo xam ne mosu ko gis. bu ma duggee sa kër. waa ni alhamdulillah taala. nee na sant na sant na la yàlla bu baax a baax. nee na mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi gërëm yàlla bu baax. pour gis la. waxrasna habtu ya rasulillah te xam na gis na gis na gis na bëggante li nga bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci waa kër waa kër Cheikh Sidi waa kër waa kër waa kër waa kër waa kër waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma di encore li nga ko bëgg li nga ko bëgg yëpp rasulillah ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne moom mooy def mooy mooy mooy shaafi wala yakun fi fi ilmihi. nee na dafa bëgg a xam yow ci sa bopp. incha allah laa anu laa xaaf min shay. nee na bu ragal dara ci àdduna ak laaxira. loo bëgg nga xool ku nga nga nga xalaat ku baax xam ne yow du bu ragal dara ci àdduna ak laaxira. nee na dafa ñëw fii ak ñeneen bu baax ci moom. incha allah taala incha allah ni nga xarit yàlla incha allah yéen ñaar. lii moo déggam. nee na bu mu yow lii la def ci Yonent bi bëgg bi li nga bëgg a yëg bi li nga yëg sëñ bi sallallahu alayhi wasallam nee na nee na moo tax mu ñëw fii nee na daf la dafa wax ma doo il faut ma ñëw nee na mi ngi gërëm euh, kii Mouhamed na bëgg na ko loolu nee na dama dafay gis nit yu xam ni parfois daf koy euh, ba xoolam da koy bañ mais kii bu ma gisee nee na parfois sax day gis ay borom doole yu mag mais du ko bëgg parce que am nañu yàlla wan ci ci moom mi ngi nuyu ñeen yëpp di leen gërëm di la sant nee na mi ngi lay gërëm di la sant ñeen yëpp ngi na ñaan yàlla ñeen yëpp incha allahu taala nee na jàpp nañ euh, euh, Alassane Cheikh Cheikh jàpp nañ ko bu baax an jàpp nañ ko bu baax nee na sant nañ ko bu baax yi nit mu mel nii nee na lii tur bu am bu am histoire mm-hmm. jour bii jour bu am histoire ñu ne incha allahu taala ñu ne si xabaar mi ngi ñëw moom moo la ko wax te xabaar mi ngi ñëw lu rëy la nee na mës na ay temps ñaari at wala ñetti at nee na gént na lii gént na lu ma nii nee na boobu du du du du boobu du du ngént sax boobu boobu moom gis na ko am na ñaari at léegi wala yooyu allahu akbar يعني منين دخلتهم؟ مو دقي فيه لا حسيت اني دخلت علاش؟ لان خمن يراهم يقن المهم دقنا تي دارا نريد تي موم خاطين بديت لان انا على بلاص خمن دافي دق تي مي دو خول دو دال الحمد لله لان ديك خولم دافا توي دافا باخ dafa dafa ña sant na yàlla bu baax ajib allah taala nee na mi ngi ñaan yàlla itasaamulaan masid yal na yàlla incha allah yokkal sa sa sa kii yokkal sa sa non non yokkal sa nit bu comme yow maanaam waaw nit bu comme yow yal na yàlla incha allah mu bëri fii ci réew bi ci ci ci jullit bi yëpp te réew jullit yëpp nee na nee na nee na César César César nee na jaar boo xam ni nit boo xam nee na ay euh, man dëgg ma loo nee na nee na yow da nga bëgg nga bëgg li nga bëgg sa jaar euh, ah, dafa bëgg mu yokku fii si àdduna neen ci bëgg neen ci bi nee na ñëwal fii tàkke dëggu sa xabaar yëpp nee na nee na dafa ñëw fii xam na ni dañ ñëw ci ci ci ku bëgg a ñëw ci saa si te loolu lu rëy ci moom nee na wasalaam ali ibrahima rabbi ij'al haadha baladanan ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ادخلوها بالسلام من آمنين ويجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا إن أول بيت موضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم من دخله كان آمنا ادخلوا مصر إن شاء الله آمين بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنوا من خوف وآمنوا من خوف يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى وبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخى لكم به كي تجري البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله الخير كله بيد الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله خذل لمن لان ومن جار وفي خال نبي عثمان يسو في سبعين ألفا وكل نقول الأنوار وهو الذي منه تستعين الملائكة والمصطفى فله قد بلغ دار ومن كراماته أن سره تم يوما على دار سلمان وهو سبار سلت ملائكة الرحمن يوم هذا هل يبقى الذي أبدته أخبار وبحارقه أن سلم من دمي هل الكتاب لياد فيه إنسان الأنوار أممن عم رسول الله سيدنا زوج بطول علي فهو مختار لو سجاعة والعرفان مصرف والهب والقرب وهو الأنس والجار باب العلوم أبو سبتين ثم لا هدى الملا ولخير الخلق إنسان